boo génnee def sa live da ngay saaga léegi ku mu neex boo toogee ci plateau bi wax baatu teg gin sax doo ko jëfandikoo moo xam benn woroom yi xam-xam lañu wala lu ñu a doon waaye léegi lu neex di wax egg ci jamono boo xam ne mboolem lu ñu daan nëbbu léegi dañ koy fésal dañ koy fésal adduna yàqu ci jikko wala mës di nëbbu léegi dañ naan ko fang ci ab moom lañ daan def di gàccee di la dal léegi da ko tiitaloo kon ana jikko bu baax ana melokaan bu baax ana doxin bu baax nit ñi jël temps yëpp jëme ko ci réseaux sociaux yi dox na nit diggante nit ak joxe addi kër sëriñam da nga gis koo xam ne bu yoroon benn deux mille francs war koo joxe cotisation ci daayira bi jënd ko connexion bu koy gën a te la muy tàbbkat yoonam du ca rek moo ne mën nga caa jàng béréb la boo xam ne nit ñaa ci jàng ci université yi gën a kawe seen internet yi nit ñaa yokk seen xam-xam yi relation yi mi ngi yokk waaye déedéet da nga naan ko fa teg dugg ci site boo xam ne wala groupe boo xam ne dañ koy wax lépp ay ñaaw ci bokk yi bu ñu mu ba yoo xam ne dañ koy tuddee topp nangam nga xam ne topp ay bi dañ lay tudd xool ñaaw-ñaaw yi ne dañ tudd ku nekk bala ngaa am mbégte da ngaa xool ci moom ab sabaan waaye feeg yaa ngi dégg ci moom lu baax doo bég te gaa yu baax yi dañoo toogee seen dara yi képp ku leen di ŋàññi am na mag mu baax mu daan wax ne Serigne Makhtar Gueye ci waa kër Serigne Mor Janjar yi la daan wax ne waa ju baax boo koy ŋàññi da ngay wanaa su lor yi bu lay la da lay cofli waaye boo koy ŋàññi da ngay wanaa su lor yi mu ne lor yooyu ngay wanaa su na ko gis docteur ko boo dee te léegi complexé wul sax ci wax nit lu ñaaw ak yàq deru doomu aadama di woo ko ko di neexal safoo ko soof lu jafee ngi noonu mën a maîtriser dara soof lu ba noppi nga mën a calme ak a jafe léegi loolu soof nga jàpp la waaye ku dul nag ku dul kuy mooy boromam la muy la muy laabir laabir la muy baax baax kuy mooy boroomam xam lewatu Sëriñ Tuubaa kon gis nga ne jikko yu baax moo tax ba mu koy teg mu ne billaay kii jikko yu yonent la làmboo jikko yooyu mooy jikko yi bi sallallahu alayhi moom la làmboo mu mel ni kon bokk na ci melokaan yooyu nga xam ne waxtu wu nekk war nañu koy dund ci sunu biir ak di ko joxalante ci suñu biir mooy mànd yonent bi sallallahu alayhi wa min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'ni bokk ci liy rafetal islaam yi nit ki mooy ci lu sa yoon nekkul màndu sa yoon kon nekke màndu ci sunu lu sa yoon nekkul ci liy rafetal islaam waaye léegi lu jafe lu sa yoon nekkul da tàbbi ba wax ca loo warul wax def ca loo war def gis ngeen ne ci lu sa yoon nekkul dañuy wax ne doomu aadama saa bu namee yàlla day wormaal mbindeefi yàlla yi moo tax Serigne Touba bul xool ci kenn xoq waaye yow loola war ci nit dee ko def loolu bokk na ci jikko ju rafet bokk na ci ay teggin bokk na ci baax mooy loolu la war ci nit yow day ko def waaye mu séntu ne nag moo ma war a waaye mu warul ma ko benn surtout wàllu yeneen yeneen te nee na mbindeef mu ne xoolal ci moom àq yàlla borom kenn ku ne xoolal ci moom borom bi subhanahu wa xool bi ngay xool ci moom yàlla na mi ko bind mooy tax doo ko doo ko doo ko bëcc gële mooy tax doo ko doo ko doyadal mooy tax doo ko yem gis nga soxna Diagne Sulaima Mariama Bousso borom jikko yu rafet yooyu mat a delloo si waat ci jigéen ñi sëñ Moussa Deme rafet rafet jikko man moo am lu toog lu doy lu sax xaj dëkk seen maam yaa bu baax ni ni nga xam ne ni la mel ci à part la mel ci jikko maa tax mu ne rafet rafet jikko waaye it man boppam la te la muy def. si togg lay nekk lu doy waaye lu ci sàkk ay xaj lu ci sàkk yi day nekk mu mel ni kon jikko ju imaamu Junayd di nee na woon ñeente ngi nii yoo xam ne ku mu daje yow yàlla yëkkati la muy lewet toroxlu tabe rafet jikko lewet lu am solo la toroxlu yi lu am solo la waaye tabe yi lu am solo la moo yore nga barkeelu boo jàpp ne mu nga cee jot mën nga cee te doo ko laajee dina ko may wax lu ma xam barkeelu boo xam ne dañ la ko yëg maanaam da nga nit yi ñëw seet si ne la ah dama am kii lii sëñ bi ko yor far jox la ko te waroo ko woon a laal ay nga dara. boo amee boo ñàkkee nag am na ñun moom mën nañoo topp ko am waaye ku ñàkk ñu fàtte la te duñu yem ci ñàkk gi bàyyi la dañuy yàq sa def naan jiw mi xawoon naa dana ñàkk li mu yor ndax nañ ree woon naa ko doon fréquenté mais laaj doon waaye tëgutoon si suñu tubaab yi fenn kii bëggutoon yi bokkam fekk yaa ko daan jay naan ko sa liggéey nday laaj li nga am kenn mënulu ko yàqal la mu jeex la dawar bëgg la ku ñàkk ñu bala adduna euh, moo mel noonu moo mel noonu waaye ku wopp ñu daw la ku dee nag ñu fàtt la ne mos yàlla sa rek moo tax Serigne Touba mi nga xam ne dafa dégg adduna te xam ko jàngal na fi ni jaar ba mucc Serigne Touba dane kunu ibadallahi ya ixwaani bila taxaasudin wala udwaani man xabba lil aqi alladi yuhibbu li nafsi rabbi abda sëñ Tuubaa nee na yéen samay bokk jullit waaye doon leen jaamu yàlla ci lu dul ngeen di iñaanante wala ngeen di xëccoo daan na ko bëggal mbokkam li mu bëggal boppam yàlla gërëm sëñ Tuubaa nee na bu leen xëccoo bu leen iñaanante bu leen bañante luy waral nga ca ne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 wallahu ala awni abdi maa kaana al-abdu ala awni abdi mu ne kon day dimbale day jox aji laaj di dimbale dëkkaaleem du tooñ waaye ku tooñ bu jéggal la Serigne Touba nee na ku ma tooñ baal naa la Serigne Touba nee na jéggal naa samay noonu ba faw yëmu ca jéggal naa samay noonu am na xol bu sell afawtu anil a'daa'i turran afawtu anil a'daa ma safital karim xol bu sell la àndal li may jéggal noonu yi ma tooñ wax na leen ku ma tooñ baal naa la dama ñaan yàlla ku ma tooñ li may yéene ki aju ci man di ab jul ab murit laa du may ku ko bañ lu jafee mu loolu yomb ku la bañ kay looy fexee lu ko dal Sénégal ngay gis koo xulóol ak mi ñaanal yàlla musiba bu sa soxna fay bu sa oto paan bul fokkas koo xulóol boo fakka solo mu ne gisagu dara gis nga loolu saa yi da bareen di déwén bareen di déwén xam nga moom dafa xew ci réew bareen di déwén. am na ku ma ko waxoon 2019 mu ne bareen di déwén mu ne ma bareen di déwén ma bàyyi naa seen tubaab bareen di déwén xaw ma nag ren bi mu déwénee lu xew bàyyi daal tabat yi ak maqat yi daal man gisuma ko wax. njabootu seen tubaab yi duñ seetaan loolu yaa ngi seen tubaab yi duñu nangu loolu. ku ne ci waa seen kër moo tax teg gi Touba yi war maa war maa leen rek doy na gàllaaj kon gis nga Serigne Touba di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal yonent bi sallallahu alayhi wa ñett mooy baax baax dëgg ñett la tax boo xamante ne la ma ba noppi nga baal ku dog ka di ko dog ku la yéenewul di la xañ loo jox loolu mooy wax